waaw man la euh, Moussa Ndiaye dëkk Baba Wolof. man maa indi gëm sa bopp. gëm sa sa bopp tey mu ñàkk premier match am fii ci waaw waaw dama ci am kontaan rek di sant yàlla parce que commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahiim àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin yàlla nag mooy xañe mooy maye. loolu ma ci am kontaante te que moo may may kon bu ma xañee dama ci am kon kontaante bu baax. waaw waaw noonu la man xamoon naa noonu lay dem parce que ren dama bugg a def changement jël sama boy yi nga xamante ni si ñoom laa defoon kadde ma yëgal leen senior jëm leen a testé ba xam ne nu ma pour former leen pour ëllëg parce que équipe dañ koy fondation boo ko fondation bu ëllëgee nga am équipe bu assuré léegi ma def loolu jël sama boy yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. te gaañuwu ma fenn ma jël leen pour yéegal leen ñu dem un pour ëllëg su déwénee ñu mën a évoluer pour mën a avancer. mais gis nañu ne ci deuxième mi-temps bi euh, li nga football ci deuxième mi-temps bi defoo boo ko defoon ay biir est-ce que constaté nga gis naa loolu bu baax looloo tax ma ma deme ba ci biir ma changé sama mat parce que gis naa ni li ma teg li ma bàyyi ci banc bi moo ko gën a baax léegi ma retourné jëlaat sama change def sama changement.

fair play mu pré du am benn problème du am coow may ñaax ñi ci des rek bu ñu góorgóorlu avancé comme ni ñu defee nii rek ba yàlla def ci jàmm nawetaan yi àgg ak jàmm wasalaam di nuyu communauté bi yëpp di nuyu waa Notto Diobass Moussa Ndiaye dëkk Baba Kër